ne euh, wax nañu ko ci wàllum weer bi euh, feeñ naat feeñul ñaari korité yi mais aussi ci seen jumaa bi nga xam ne rek euh, voilà moom la ñu daal di nekk di construire dañu daal di jóge foofu ñëwaat fii euh, ci beneen star donc moom dama ko bëgg naturellement dama ko bëggal sama bopp ñoo ngi fii nga xam ne mooy Liberté 6 daal di seet si euh, Nafi Diallo donc de PDS donc dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu daal di ñëw ci waxtaan bi Nafi ma star nuyu naa la. <laughs> non yaay sama star maa ngi leen di nuyu di leen remercier si li ngeen ma seet si di leen ziar bu wér. Euh, di rafetlu seen liggéey vous êtes brave macha allah yal na leen yàlla gën a yokk Euh, di nuyu sénégalais yu ñuy seetaan di nuyu également may mun a nduur ki une battante du ma taay di ko wax foog naa mooy seule femme bu amee groupe de presse euh, te tey ji macha allah c'est pas n'importe quel groupe de presse yàlla na leen yàlla taxawu. merci beaucoup c'est gentil xam naa ne euh, moom it du ñàkk moom lay seetaan parce que dala daal di apprécier bu baax a baax ah, ba tax na euh, jóge nañu ci kër ay kilifa ñëwaat encore ci kër kilifa dañ koy daal di wax rek ginnaaw bi ñu jugee ci li nga xam ne mooy koor démb la ñu daal di wari donc tey ñu ko korité de moo nekkoon dernier koor bi donc yow naka nga ko dundee en tant que jullit. ah euh, ma déjà maa ngi déwénati ñëpp euh, di baalu àq ñëpp sénégalais yëpp euh, ak képp ku ma tooñ ndax man nag parfois ma tooñ <laughs> di di di di baalu àq wax dëgg yàlla di ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi yàlla bàyyi leen fi suñu kanam di ñaanal président Abdoulaye Wade mu yàgg fi loolu moom it te di ko ñaanal ñëpp di ñaanal itam ñu ñu ñu daw làkku yi suñu wéyjur yéeg suñu mbokk yeeg suñu mbooloo jullit ak catholique Euh, yàlla xaare leen àjjana firdawsi euh, di wax egalement nu ma ko dindee saf rek man ñëpp a may tooñee ragal koor waaye nag euh, xam nga toujours dama koy wax ku ma xam ñi ma xam dëgg xam ne ñi man diine bi duma ko fowee waaw mën naa ànd ak yow léegi ñu ñu ñu ki waaye diine bi julleek woor yooyu moom duma ko fowee xam nga ñun doomu pël lañ donc woor koor gi safoon na mais itam moment de vivification la sa xol fanaanee gudd bi yëpp wér loolu rek kay gàllaaj ñaan yàlla euh, mu bàlla say bàkkaar et surtout nga jéem a améliorer pour du bëre nga jéem ne lii dama koy bàyyi dootuma ko defati lii ak lii dama koy bàyyi te muy dëgg ci yow pas koor bi jeex rek nga reprendre donc koor euh, bi safoon na tey korité gi macha allah euh, alhamdulilahi rabbil alamin li métit lu rek samay waajur yu ma ñàkk ndoo ñoom ñëpp donc fekkee wuñ ko mais sinon alhamdulilah ndax lu yàlla def rek dafa di lu Euh, macha allah et on est vraiment désolé aussi ci waajuram yi nga xam ne ñoom la ñàkkaloo ci benn at bi donc euh, mu nekk lu métti métti mais du ñu yàq li nga xam ne euh, mooy voilà ambiance bi ah, dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne mooy korité bi ginnaaw bi nga waxee ci koor gi ah yaa ngi doon woor yaa ngi doom julli yaa ngi doom jàngi arxulaan mais nag ñëpp yàkkamti woon nañ li nga xam ne mooy korité bi korité bi di doon tay naka nga koo dundee. ah waaw comme d'habitude rek yeewu macha allah julli. Euh, sama sama doom dem julli euh, woo mbokk yi déwénati leen euh, togg defar laax xam nga nag man bëgguma laax lu compliqué yooyu waaye simple le plus naturel possible maa ngi ci woyal ba tey waaw waaw woyaloon naa defar soow bu neex def sama petit four maa ko defaral sama bopp ay guacamole def saumon fumé de ci canapés Euh, après euh, à midi euh, ñu togg on fekk démb moom loolu démb laa ko defaroon pour tey rek dama dugal ci four bi def gigot dañu ak def salade de pomme de terre nii nii mi ngi lay xeeñ ñu ngi def poulet au four donc voilà lekk kontaan woo mbokk yi ziyaare ji mbokk yi woo ñëpp ñaanal ñëpp noonu rek kon lépp lii la nit ñi di waxal dëgg la cordon bleu nga mën toog. dëgg la dëgg la c'est-à-dire dama koy géej a def nag <laughs> mën naa toog at du ma dugg ci waañ. boo rek ñëpp waay waay quand chez mes parents su ma daan togg. ñëpp naan ay Fina dañ koy waxante Fina mooy togg tey mooy togg tey mes nièces tout le monde je mais nag moom coono bi. togg bi dama koy géej a def mais je sais ah. en tout cas nee naa leen moom cordon bleu leen boo leen déggee ni mu ko expliquer yi rek ngeen xam ne vraiment ku mun togg la ah, ba tax na aussi euh, korité bu ñu nee korité euh, ginaar la nit ñi di faral di di di di gën a def yow ma dégg nga ne gigot d'agneau pourquoi nga choisir man euh, sama doom xam nga moom murit la nag moom moo ma ni ginaar parce que Touba ginaar moo tax ma def le soir mais chez man sama kër famille ba mu juddoo ba tey ñun kii la ñuy doon def méchoui soit ñu def méchoui cin wala méchoui dibi loolu la ñu faral euh, di def donc man xaw ma woon ni ginaar bi c'est en grandissant que laa gis kër yu bëri di def ginaar sama doom moom itam nekk taalibe im léegi korité euh, ñuy def ginaar donc damay def les deux. les deux mm. alors tey bu ñu doon yi ma njëkk a ma def yëpp euh, moom mooy quatrième personne bi ma invité ñëpp blanche bi la ñu choisir mais moom rouge bi pourquoi nga choisir moom moo dàq yàlla bu mu euh, la viande tendre euh, nga nga xaw ko bu ko togg bu mu. mais en même temps. Ah, yàlla bi bi saaf bi. waaw ba pare parfois sax nga def sa sauce crème rek def ci champignon. Mm-hmm. ah. fruits de mer. <laughs> nee naa leen ñaari cordon bleu ñoo toog nii kon waxtaanu lekk bi day gën a xóot day gën a yaatu ah, donc ñu ngi daal di gis ne aussi euh, bu ñu nee korité ñu bari ginaar lañu ñu utiliser alors euh, xam naa ne information bu amaan yëg nga ko comme mën nga ko bañ a yëg muy euh, rek grippe aviaire bi nga xam ne daanu si na biir Sénégal juste juste koor gi bi mu tàmbalee avant koor gi di tàmbale juste un mois Euh, donc ci la daal di temps la daal di daanu Sénégal fii ci Saint-Louis euh, donc ñu gis ne grippe aviaire nag ba mu commencé euh, am yàgg na depuis 2023 fi mu tàmbalee du Sénégal donc dëkk. Euh, Asie asiatique yi la daal di tàmbale donc fii mu ñëw fii euh, euh, ren ba tax ginaar manqué lool lool lool yow bi ngay jënd kon ko da ngay def ñaar yi jaxase bi ngay jënd ginaar est-ce que amoon nga ginaar ndax ginaar manqué woon na bu baax. waaw xam nga euh, déjà dama bëggoon wax rekk ci grippe aviaire du première fois amoon na li ñu naan Covid nii amoon na ci ab Ablaye Wade ci animaux yi mais looloo tax tey jii nga gis autant de poulailler mm-hmm. Wade dafa tëj frontière yi ci saas yi daal di ne nañ ñëpp ku mën na nga na na nga yaral sa bopp looloo indi tey les grandes entreprises ñi jaay ginaar yi ngay dégg grippe aviaire boobu la jóge wàdd booster le patronat sénégalais booster euh, nit ñi pour ñu dem vers l'entrepreneuriat donc looloo tax tey Sénégal ñu am suñu euh, suñu autosuffisance je peux dire pratiquement en si ginaar ak yooyu noonu euh, donc effectivement lu metti la mais man amoon naa parce que man dama am koo xam ni waaw waaw sama wéy joobu jigéen Euh, moom toujours dafa amoon ku koy indil jën euh, yu bees tàq dafa amoon ku koy kii léegi ñooñu ñëpp dañu fas yéene continuer kóllëre bi euh, koo xam ni mooy indi ginaar koy indi fruit de mer donc ñun on a gardé muy sama sœur muy man on a gardé les numéros donc lépp luy waaj a xew dañ leen di woo rek ñu préparé ñu. kon moom bokku ci ñi nga xam ne dañu daal di manqué ginaar am na ñu bari ren amuñu ginaar ay toq ginaar la ñu am ay cuuc euh, ba tax na voilà comme ni mu ko waxee da ngeen di del teel a commandé mais sénégalais moo bëgg euh, dernière minute te loolu c'est c'est c'est pas du tout sûr ba tax na euh, korité bi ren gis nañ ne ren ñaari korité moo am mm-hmm. pourtant nit ñi ñoo woorandoo donc yow naka nga gisee situation boobu ndax nit ñi dañ ko politiser voilà ñii nee nañ bu nekkee dañu korité vendredi Euh, euh, euh, ki nga xam ne mooy pac waa waa waa nu nu ñu leen di woo waa nguur gi ñoom du ñu gagné mais bu ñu korité samedi dañ leen di dañuy gagné. waaw mais xam nga man loolu moom duma ci mën a sore. nguuru xam naa ni naan ko ko wari àjjuma moom déggoon naa ci mag yi ni baaxul mais duma ci mën a sore te man gëmatuma ni xëy na mënoon naa koo gëm bu doon ñeneen waaye Sëriñ Muntaxa bu ne àjjuma la àjjuma samedi la samedi la. en même temps mënuma weddi muy àjjuma pour lan famille omarienne itam euh, àjjuma lañ ko def ñoom démb man démb laa wari parce que sama jur ñoom la doon topp donc bu fi jugee itam te awma boroom kër ñoom laay continuer di topp waaye teewul sëñ Muntaxa bu nee samdi la man gëm naa ne ni que fu fu wóor la ko teg donc moo tax waxu politiser bi raxasu naa ci waxatuma ci ndax sëñ Muntaxa bu waxee rek ëskay lañuy lañ ciy teg waaw murit moom nee na samedi la samedi la murit ndigal te euh, je pense que moom tamit weetu ci benn yoon euh, ndax euh, yeneen kilifa diine tamit génn nañu net korité bi samedi la donc ñu bëri woor yi nañu tey mais am na aussi ñi nga xam ne gis nañu weer bi ba wori démb mm-hmm. ba tax moo waaw waaw ñoom démb lañu la ñu wori donc man bon ci laa wori ndax fan fa lañu daan jullee xale tam xarit ak fête yëpp ndax sama baay ñoom la ñoom la doon topp donc par euh, devoir de mémoire waaw ma def ko alors ñu daal di génn foofu daal di ñëw un petit politique euh, donc gis nañ ne euh, tension bi jamono gi bari na lool marche yi fii xeex yi fii et cetera ñan ñooy origine bi exactement ñan ñoo ah xanaa kenn benn responsable moo fi am mooy président de la république ndax moom lañ dénk réew mi moom moo war a veiller à la sécurité de biens et des personnes moo war a veiller à la sécurité euh, euh de ce pays la moo war a ñàgg réew mi waaye itam moom moo war a wàcce tension bi xam nga dañuy faral di wax ni nit bu la bu la sutee dama ko daan gis ci wàdd mu mën laa écraser lool du ko def parce que nit loolu mooy kilifteef la différence tu peux pas être au-dessus des gens du point de vue institutionnel bëgg comporter wu comme ñooñu noonu moom il doit être au-dessus de la mêlée moom moo mën a dindi crise Euh, yi am ci réew mi yëpp moom rek moo ko mën a solutionner. c'est c'est important donc euh, xëj na euh, du ñàkk moo ngi lay seetaan dina ci daal di bàyyi xel ci li nga wax donc yow en tant que ki nga xam ne da ngay daal di yëngu ci wàllum politique madame Diallo lan mooy solution bi nga xam ne mën nañu am rek li nga xam ne mooy présidentielle bi nga xam ne day apaiser wu calme sans problème ni rien. ah xanaa euh, ñu bàyyi le l'élimination systématique des candidats xam nga itam su ma jëlee kaaw PDS parti boo xam ni au plus bas de sa forme vraiment bu bu bu deful politique Ablaye Wade ñëwul amul euh, c'est-à-dire rien activité mu toog bu jógee rek ne suba damay dem élection tu di peser quatre cent cinquante mile cinq cent mille voix amul parti bu am loolu c'est-à-dire ay coalition parti ñooy am mais cinq cent mille voire à peu près, presque la moitié, euh, plus, euh, plus de la moitié d'une méga coalition comme Yewi, euh, euh, la moitié, un, un, un, peu moins de la moitié bu méga euh, giga coalition bu ni benn ni bennoo xam nga kooku kon partie la donc nga jël leader am ne du bokk candidat nga dem def ko xalifa Sall nga xamante ni ñëpp xamal nañ ko ni am na doole torop Dakar ak yenn beaucoup d'autres de de zones mu amoon ay maire yu bëre nga ne ko moom itam du bokk loolu tension bi day day waat parce que xoolal ku am 500000 voix wala kële di peser 300000 wala 250000 ñoom ñëpp nga ni leen du ñu bokk jël ñeneen ñoo xam ni parrainage nga ni leen du ñu bokk ci parrainage éliminer leen de façon euh, boo xam ni kenn amu ci visibilité xam nga parrainage CEDEAO sax dafa nañ ko war a dindi baaxul mais nga éliminer ay nit euh, ci loo xamante ne amu ci visibilité yooyu yëpp c'est des facteurs bloquants pour la stabilité du pays tey nag ñuy dem 2024 nit ki taxaw également euh, aujourd'hui ñu kenn xamul kan mooy nekk candidat en réalité ah euh, ñun moom suñu ba wër na mais loolu yëpp dañu war a def apaiser loolu mooy apaiser ku mën nga nga nga nga gagné man dama gëm le jeu démocratique man dama gëm sama doole man moo tax damay wax toujours dama bëgg ñëpp bokk ñu dem démocratiquement jeu bu clair bu transparent parce que man wóol naa sama mbër xam naa ni day daan donc tiituma tiituma euh, euh, yooyu mais kuy tiit loolu rek mooy éliminer ay candidats donc il faut que le, le président Macky Sall régler problème yooyu ñu nekk ci jàmm parce que Sénégal rek moo des un havre de paix dans la sous-région et même en Afrique partout djihadistes yi installé wu nañ fa ay populistes jël nañ réew yi di diriger di def du n'importe quoi euh, temps yee am na dëkk à côté cessation de paiement la def une moitié des pays moomatuñ ko nekkatul sous le contrôle euh, de ces pays-là euh, de l'État ou de la République c'est le désordre partout ñun rek ñoo fi def avre de paix ñun rek également ñoo découvrir gaz boo xamante ni ah mën nañ raw dëkk yoo xam ni dañu naan dañu bëre gaz nee nañ gaz bi gën nañu am yooyu yëpp am fi y a tellement d'enjeux géopolitiques d'enjeux géostratégiques enjeux yoo xamante ni c'est fortement économique à l'échelle mondiale que dama foog ni waruñu bàyyi benn almet di tàkk loo xam ne mën na Euh, buñ ko kosee rek réew mi tàkk donc parce que de ñoo ñu ci yooyu jihaad muy jihadiste muy les lobbies pétroliers et gaziers muy ci ay nit la ñuy aw ñun ne pour pour taal donc ñun ñoo warul may loolu kenn te loolu Macky Sall moo ko war a préserver. en tout cas j'espère que dégg ngeen rek euh, li nga xam ne moom la message bi mu lancé euh, c'est important et que am na peut-être ñu bari ñi nga xam ne dinañ ci daal di bàyyi xel mais bu ñu ñëwee ci ki nga xam ne muy Karim Wade. <laughs> <laughs> nga ne la. may sami si ngay ngay. waaw war a mën a wax si rek ki nga xam ne mooy président Wade ak Karim Wade. yii ñooñu moom ma macha allah may sami si ngay ngay Ablaye Wade suñu papa suñu maam l'aspirateur xam nga Wade dafa neex a booy ànd ak moom nag da ngay xaw a da ngay xam sa bopp parce que euh, doo gis ku la ku la mën a jommal. ndax li ñu naan moom mooy l'homme le plus diplômé du Cap au Caire. ma yi ci de dakaar à Addis maanaam amu fi ku foo mën jàng. am parcours bu extraordinaire Ablaye Wade def vingt 26 ans d'opposition taxaw ne du ma mës a dox ci ay cadavre daf ma daf ma doon nettali mu ni yeneen opposants yi dañ ko doon ree ne ko yow de doo mës a falu Afrique bii nga bëgg ci falu te doo te doo def coup d'état doo def putsch ni rien yow doo falu mu ne leen je vais prouver au monde que ñi ñeneen ñi di def ba accéder au ñun mën nañ ko démocratie mën na fi am mu mu toog di muñ 21 euh, arrestation ñu tëj ko bataille lu ne ñu def ko ko complot bu ne teg nañ ko ko muy muñ rek di xeex l'endurance di gëm di produire intellectuellement di bind ay livres moo amu fi moroom nag muy bàyyu loolu la yàlla dogal Karim Meïssa Wade Karim Meïssa Wade nag di premier fi mu yegg ci ingénierie financière euh, foog naa mooy premier noir wala euh, africain en en fait Afrique francophone dégg naa sax amoon na keneen euh, koo xam ne moom it c'était un métis mu ngi woon Genève ñoom ñaan ñoom yegg foofu à ce niveau fi mu doon liggéey à la cité ah di ingénieur financier boo xam ni portefeuille yu mag a mag a mag la amee woon balaa euh, way juram di falu maa ngi fàttaliku ci procès euh, dañu ñëw woo Pape ne ko euh, waaw est-ce que Karim Wade daan financé pour xam daal ndax avant loolu mu ne ko si mu ne bokk na ci les plus gros contributeurs yu contribuer pour la campagne de 2000 ba pare nag mu ne luweel papaam jet privé jet privé bi indi Ablaye Wade Karim Wade ko luwe mu ne non seulement ça boole ko ak seen ay xarit mu ne mais jet privé bi amat Amath Dansokho mi ngi ci dëgg ñu ngi ci fen ko ñun dañu bëgg dem Kédougou dem feneen bàyyi fi jet bi parce que tali yi baaxul yi ñu yóbbu foofu mu bàyyiwaat fi une semaine à l'époque li jët di jar moo tax bi ñu naan ay Karim dafa am jët man <laughs> ma ko ñun jët tiitaluñu c'était avant le pouvoir jët bi mu liyeel papaam kon loolu mënuñoo tiital ah, ñu gis ne également ci ci ci inscription wam euh, dëkk bi xawoon na yëngu xawoon na def bruit réseaux sociaux yi ku nekk di dugal photoom mais est-ce que euh, réellement dina bokk ci ci candidat yi. xam nga nag ñun dañoo bëri détracteur damay faral di wax man leen wax coow li coow li yëpp euh, ponkal fi newul rek. nee naa fii ku fi am buzz rek c'est parce que Karim génnul wala Ablaye Wade génnul bu ñu génnee dañuy man mani la day mel ni ñoom rek a existé keroog ba mu lancé une carte euh, nu mu tuddee ci un militant dix inscrits gis nga na réseau ya mel gis nga na rek euh, presse bi mel gis nga na débat politique yi mel yàlla may na ko loolu ndax nag bëreewul wax moom bu waree wax lay wax il a beaucoup de il a beaucoup classe te day wax lu am continue loo xam ne day njëriñ ah ñu parewaat. mu génne photo dem inscrire dëkk bi yëngu nag ndekete yow ñu bëri nañ détracteur de ñoo ba ndekete ñun du Macky Sall rek mooy suñu adversaire de àdduna bi mel ni tus euh, tsunami ma ni leen yéen benn kii doxantu def benn snap rek ngeen tiit ma ni ko mais kii bu waree ñëw AIBD ñu war a def marché bleu boo xamante ni nit ñi kenn du xam kenn du ñu mën a téye dañ koy dañ hélicoptère moo ñu mën a filmer am euh, may may mun naa il faut acheter un hélicoptère pour cet événement ndax ñun hélicoptère ñuy mën filmer uh-huh. tellement pour nga mën a jël à perte de vue marche bleue bi ñu nar a def ko kon bu ñëwee nu muy demee ah mais inscrire wu na parce que dafa am droit inscrire wu xam nga dama gis ñoo détracteur la taxaw ci télé yi xam nga ñoom nag ku ne da nga am sa presse ak say euh, euh, nu mu tuddati consultant électoral ak ku ne bi ñu tiit tiitee nag ñu daal di euh, yëngal seen ay consultant ne leen bind leen ni amul droit mm-hmm. ñiy dem ci yëngal leen seen journaliste ñu wax ni baa amul droit si ñu doon wax non Karim dafa war a bokk mais quand à la réalité des faits ils ont retourné leur veste ñu télécommandé seen ay experts électora électoraux seen ay journalistes euh, naan waaw inscrire woon na fi 2019 mais demul mais du benn mm-hmm. xam nga euh, professeur Ñing euh, tous les grands juristes Ablaye Wade may fàttaliku <laughs> directeur université droit Dakar muy nekk un des premiers juristes de, africain kenn xamul bat at la di juriste ab euh, Karim am les plus grands avocats en France ak ici au Sénégal ñoo doon avocat woom ñu ne ñoom ñoo ñuy wax ñun loi ay ay ay journalistes yu jàngul ay chroniqueurs yu jàngul droit nee nañ ñoo ñuy wax luy droit parce que damay fàttaliku ni euh, le 20 septembre 2020 collectif avocat Karim yi dañu bind bind ko à l'époque la presse internationale traité na ko bu baax sax ne désormais état Sénégal mënatul wax euh, inscription euh, basé wu ci code électoral pour ni Karim mënatul doon éligible ñu ne parce que retrouvé na ses droits depuis le 20 août 2000 2020 21 août 2020 pourquoi ma koy expliquer euh, ñun bi ñu créé bi mu ñu toppee dañu demandé woon pour ñu dindi ay droits Karim juge bi bañ il n'a pas dindiwul ay droits civils et politiques ci guddi ga yéen a ngi koy fàttaliku maître Kaba euh, bu doon ministre génn ne Karim Wade confirme ses droits civils et politiques léegi entre temps Karim dem Koweït bindu yéen a ngi fàttaliku mooy vidéo bi ñuy wax bindu bi ñu bindoo ñu daal di dem dugal code électoral bi assemblée nationale tu t'imagines on change tout un code électoral pour benn nit muy article 57 code électoral léegi ñu ni pour nga nekk éligible foog nga nekk électeur moo électeur lañ ci dugal ce qui fait day impacté ci suuf mooy 29 et 30 article yooyu dañu liim ñan ñoo mënul bokk ci élection parce que n'oublie pas hein jàppal quelque part ni juge musul prononcer la déchéance des droits civils euh, et politiques de Karim Wade léegi ñu lim ne article 29 ne ñii ñii ñii lii bu leen dalee mënuñu bokk ci élection mënuñu doon électeur mënuñu donc bokk ci élection article bi ci topp daf ko encadre ne ko waaye c'est pour une durée de cinq ans est-ce que vous comprenez parce que dans le monde amul fenn fu nit di perdre ses droits civiques et politiques ad vitam aeternam c'est contre les droits de l'homme c'est pas possible nit juge moo koy wax en général c'est pour dix ans mooy wax kañ ngay perdre ses droits civiques et politiques wala code électoral bi bu mu ko wax daf ko encadrer ne cinq donc 2019 ñun ba ñuy déposé conseil constitutionnel daf ñu ni code électoral nee na mënu leen bokk pendant cinq ans mënu leen bokk ndax dernier recours bi ñu def Sénégal c'était en novembre 2015 ñu def ko donc à la cour suprême verdict bi boo génn le en novembre 2015 foofu ngay compter un deux 3 4 ba 5 muy 2020 donc 2019 effectivement même si la loi est mauvaise même si la loi est unique mais c'est une loi qui existait moo tax déggu leen ñu parce que loi bi moo wax ni code électoral bi moo wax même si c'est unique li may faral di wax apartheid c'était unique c'est une la loi la plus arbitraire et la plus mauvaise loi qui soit mais nit ñi tënku woon nañ ci parce que c'était la loi loi code électoral loolu la waxoon ñun bu ñu joxee suñu dossier nañu code électoral moo ñu dindi dañu ne pat 2020 date ba jot nag 5 ans yi ñoom code électoral bi ñu visé régler suñu problème en 2020 le même code électoral bi ñu dindi woon moo ñu wax 5 ans 5 ans yi jeex na loolu kañ wéy la débat. kon bokk bi force la. waaw ah, bokk bi loi la dafa légal à l'époque boo fàttalikoo 2019 ñun bokk waxuñu lu bëri. ce qui a changé entre temps c'est le euh, c'est le code électoral bi encadré ñoom ba ñuy ba ñuy changé changé wuñu bi ci def 5 ans yi buñ ko defoon 10 ans du ñu mën a bokk bu ñu changé woon l'article L30. 29 L30 bu ñu changé woon article bi lu wax durée bi kon lu ñu mën a bokk. waxee woon rek tout à l'heure que euh, moom la ñuy terminer mais euh, moom aussi euh, terminer bi loolu li tax mu neex ma. parce que dafay wax soxlaam ci fulla mm. mais li nga reetaan mais tamit li muy wax xel la. Mm. boo leen ko déggee donc nag c'est un plaisir. le plaisir est partagé tata Nafi Diallo. le plaisir est partagé kontaan naa ci yéen ma leen di encourager. parce que itam ba heure bi nit ñi nekk seen njaboot yéen ngeen nekk di def seen liggéey euh, yàlla na leen yàlla sàmm yokk seen taxawaay euh, di baalu àq ñëpp xam nga tey c'était relax c'était pas politique ñu reetaan tuuti kaf tuuti ci korité bi ah euh, vraiment di ñaanal tele bi ñaanal Maimouna Ndour ak ñëpp ñu mu àndal ñu dem ba tele bi sut ay maasam vous êtes très professionnel macha allah man moom ku ñëw bi ngeen ñëwee da nga ma fekk yéen laay seetaan Euh, donc vraiment di leen ñaanal di ñaanal ñi nga àndal sa caméraman yi euh, yàlla defal leen jàmm di déwénati ñëpp di baalu ak ñëpp wax bi bu jubee euh, vraiment suñu boroom la waaye bu dëngee itam maa ngi leen koy baalu waaye xam ni rek man je suis une dama dama mën a titiller nag damay tooñ parfois ma bind dara ci réseaux sociaux nga gis kenn kuy xataraayu man leen man boo ma xamoon j'aime titiller j'aime j'aime bien ironiser et faire de l'humour ndax àdduna jàmm la jàmm rek la dund ci jàmm vraiment di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal sa Abdoulaye Wade may sa misi ngay ngay ni ku coro saar ak Bafou coro saar di ñaanal euh, gor boobu noble boobu euh, le président des présidents mu gudd fan mu wér mu dund ba fekkee bu Karim Wade di def prestation de serment loolu rek a tax may politique mu war a toog Karim di war a waat loolu bu ma ko amee rek ci politique man bu ma neexee ba loolu rek laay ut ci barki Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup ah, donc moom nag euh, moo nekkoon euh, Nafi Diallo de PDS donc ràññee nañ ko bu baax a baax euh, ci li nga xam ne mooy langum politique gis ngeen waxtaan bi rek nu mu daal di neexee nee na leen comme ni ngeen ko déggee day waxtaan mais day tooñaale. voilà du ma jeexal nag tey du ma remercier samay partenaire ndax nee naa leen fecc bu naree neex rek nday jee téye ci loxo ba te ñi ma accompagner dañu daal di bari lool surtout ci événement bi di Korité ah, donc damay daal di tàmbalee ci ki nga xam ne Assane Fall borom global textile nee laa leen tissu bu ma mën di sol boo leen gis sama yaram rek moo ma ko jox euh, donc moom euh, sama partenaire la euh, tout le temps moom may jox tissu bi nga xam ne moom laay daal di sol mun ngeen ko contacter sur le 77 967 78 88 moo ngi nekk fële ca parcelle unité 10 ah, donc boo leen ko woowee rek dina leen jaay ay tissu yu rafet ba pare moins cher. tissu boo leen bëgg rek daleen koy dal di jaay mais nag boo leen jugee ci Assane Fall da ngeen di ñëw sama boutique Keyna la Star Store donc ñun ñooy ñaw yi donc voilà mun ngeen ma contacter sur le 78 480 vingt cinq lu ma sol lu ne rek saa yu ma ci jongoma maa ko ñëw mais nag kenn du sama tailleur di Aga donc Aga sama manquin bu mag bi mi nga xam ne saa yu ma ñawalee rek ñu daal di signe ñëpp apprécier li nga xam ne mooy ñawam sama ñaw yaay yi boo leen ko gisoon bàyyi sama ñaw yi nag kenn waxatu ko jóge foofu ñu daal di ñëw ci euh, ki nga xam ne moo yor sama wàllum maquillage sama wàllum coiffure du kenn ci ku dul déjà Flava ko kenn dootu ko présenté ci Sénégal parce que mooy maquillé star yépp donc mun ngeen ko contacter sur le 77 624 73 00 donc moo ngi nekk foofa ca Nord Foire et aussi euh, ñu ñëw ci cheveux bi cheveux bi nag euh, ki nga xam ne mooy Seydina Fall borom cheveux yu baax yi euh, moom moo fi daal di jaar donc moo ngi nekk fële ca Ouest Foire également mun ngeen ko contacter sur le 77 318 18 24 68 et aussi euh, pour pose ongle yi nga xam ne dafa nice lool at rek li nga xam ne mooy ene temps bi ene yi euh, donc euh, fële nga xam ne mooy VIP onglerie ñoom ñoo fi daal di jaar ongle yu ma mën di pose si àddina ñoom ñoo ko daal di defar aw ma beneen posekat bu dul ñoom mën ngeen leen contacter sur le 78 153 70 58 mais aussi du ma daal di fàtte ñi nga xam ne ñoo ma accompagner muy sama caméraman di Papis Dem Papis Dem sonn na ci sama Euh, ak li nga xam ne mooy interview yi nga xam ne jot naa ko def euh, loo leen gis mu rafet ci image rek euh, moom moo ko daal di génnee mais aussi ki nga xam ne mooy Omar le chauffeur moom it fépp fu ñu dem rek moom moo ñu daal di dawalal di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan cette TV mention spéciale à ma mère tout le temps daf ñuy daal di seetaan di leen jaajëfal yéen ñëpp mais aussi di leen jox dig daje ci beneen événement ñu daal di defaat yeneen interview yi nga xam ne dina leen daal di intéressé di leen moom laa sañse voilà sama sañse nii la nii la demee damaa daal di dem ba fële nga xam ne mooy Inde euh, ci indo ya daal di def nii voilà papis dem sama sañse mbaa mm, neex na la donc nii laa def di leen jox di daje rek ba incha ba beneen événement sur ce prenez soin de vous et bonne fête à